mbokk taalibe yi kon ba tey ñu ak euh, waa conservatoire ñu jannoog sëñ Souleymane sëriñ Sall ak sëñ Abdourahmane nga xam ne jëriñ lañ ci conservatoire mu mel ne it euh, ba ñu waajal bés bi am na ay ay ay ay waxtaan ak i waajal yoo xamante ni amaloon nañ ko lépp rek ngay waajal bésu soxna jaar bi kon ñu jox sëñ Souleymane bu ko defee rek mu indil ñu ci lenn ci ni nga xamante ni noonu lañ waajalee bës bi mu jëm ci wàllu conservatoire aouzu billahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi siyaare mbokk taalibe yi di ndokkeel ci xew-xew bii nga xam ni xewte xew-xew mbégte la di xew-xew boo xam ni xew-xew bu bu màgg la ci yoon ci lislaam dawut nag yoonu murit ñoo ngi ñaan suñu borom ñu yàgg koo fekke ci barkab xasida yi ah Baye wàllu njàng mi moom kem ni ko doon waajale rek ci xew-xew yi fi jàll lu mel ni màggal wala gàmm dayoo boobu ñu joxoon xew-xew yi rek lañ ko jox ndax soxna si it wax dëgg yàlla bisam bii bis la ci yoonu murit kon bu ñëwee mënuñu koo xàmmee xew-xew yooyu moo tax ni ko waroon a waajale ci wàllu kuréel waajale nañ ko noonu waxtu yi li muy xat-xat nga xam ne tàkkusaan dañ ko tàmbali teewul waajal nañ fukk kuréel ak benn yoo xam ni ñu ngi leen naso ci daara yi ngir mën a jëmmal bis euh, njàng mi nag tàmbali na tàkkusaan nga xam ne kuréel bu kawlax moo ko commencé fi may wax yow nii kuréel 3 bu Touba mooy jàng bu ñu jëlee timis kuréel 2 bu dakaar mooy jël te na lañ ko fas yéene toppee ba fajar loolu lépp nag ngir xam ah, dayob soxna si la ni mu taxaw ci yoon wi ah, ak di ko ñaanal rek sunu borom dajale ñu xëy eh, xëy ci barkab xasida yi xam naa nag damay jox sëñ Abdourahmane nii nga xam ni kenn la ci jëwriñ yi tamit moom it mu sànni ci ay kàddu waaye ci wàllu programme moom ci wàllu njàng mi moom loolu nu ko nosee fukki kuréel ak benn la kuréel yi sax ëpp na loolu waaye xat-xataayu temps bi moo tax ñu jël rek fukki kuréel ak benn ñu yóbbaale ñu ci des nga xam ne incha allahu rabbi noonu leen koy toppee ah ba nu ba nu julle fajar xam naa li des ci wàllu soññe ci eh, njàng meeg soññe ci bis beeg yooyu moom si Abdourahmane mii moom ci jëwriñ la ci waa conservatoire ak Serigne Sall mii nga xam ne tamit jëwriñ la ci liggéey bi ñun ak ñoom ñoo ñoo ànd liggéey bi yëpp daana jërëjëf xam kon ni ko sëñ Souleymane waxee dañ jox sëñ Abdou Rahman rek bu ko defee moom ay kàddu ñu sàññil ci li nga xamante mu jëm ci wàll wàccaay bi jëm ci wàllu njàng mu xasida yi ci biir Soxna Jaara bi asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbokki jullit ak mbokki taalibe bi yëpp fu ñu foon a nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp di ñaan yàlla euh, bis bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci Porokhane di ko defal Soxna Jaara ñu daje cee ngërëmul sëriñ bi ndax lii day wane ne liggéeyal yàlla rek moo am solo ndax euh, bi fi soxna si ñëw booba barab bi tumuranki woon na lool waaye doon barab bu bu metti itam waaye mu xamoon lim doon wut xam ni ngërëmul yàlla rek la doon wut ci kilifaam googu mu àndaloon muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali yàlla dogal lii kon dañu xam ne jëfal yàlla rek moo am solo loolu itam euh, sëñ Abdou Lahad daf ko daan leeral lu bare bari dafa wax ne sooy liggéeyal yàlla nit ñi dañuy jàpp ne da ngay da ngay da ngay taxawaalu waaye nag bu la yàlla fay nit ñëpp dañ xam ne suñu borom nga doon xëyal loolu nag feeñ na bu baax a baax ci bisub soxna sii ndax buñ doon wër adduna ba mu daj moom rek lañu mës a gis ci euh, soxna soo xam ne nii bis bu mel nii ñu ngi koy defal ci kaw suuf kon loola firnde la ci loola nag daara ji am ci ab taxawaay naka naka jekk ci njàngum xasida dégg nga ci lépp lu mën di doon xeeti bernde ak euh, activité bu mën di doon daara ji yàgg na koo def ci barab bii muy muy lenn ci liggéeyu liggéeyu daara ji loolu nag ñu ko suñ Souleymane waxee njàngum xasida la moo xam ne nii Euh, sëriñ bu mag bi nga xam ne moom moo bind xëste yi te wax ni moo wax ne karaamat yi xattu yi nga xam ne suñ suñuy wax ne euh, waliyu lii karaamaam mooy karaamatul wali an la yansiya fi zahirin wa batin husiya du caagee dox ci kaw am ndox wala feeñal dara waaye karaamay wali mooy mooy bañ a mooy yàlla ci zahir ak ci baatin Sëriñ Tuubaa nag dafa wax ne sama mbindum loxo mooy sama karaama moo tax Euh, xasida yi doon lu yéeme ci ci yoon wi waaye mu doon loo xam itam euh, naka jekk ni ma ko waxee woon daara ji am ci am taxawaay bu am solo boo xam ni daf koo yoral yoonu murid yëpp ndax xasida yi mooy patrimoine boo xam ne nii yoon murid yëpp ko bokk murid yëpp koy consommé kon loola maanaam mbir mu am solo la moo xam ne nii euh, daara ji yàgg na koo taxawee Souleymane wax na ko léegi lu mat fukki kuréel ak benn ba bañ sëlmali takkusaan ba léegi ñu ngi tàmbali di jàng te incha allah taala noonu lañ koy fanaanee ba ba ba set wecc kon daal bu fekkee ne bañ na ma guddal eh, ñoo ngi ñaan suñu borom ñu day ci ngërëmul sëriñ bi te ñu teeyu ko at yu bëree bëri barke sëñ Touba jërëjëf. kon mbokk taalibe ba tey ñu ngi ci eh, reportage yu jëm si wàll secteur yi mu mel ne kon fii mu ne ñu ngi ak waa commission culturelle et ñu nekk ak eh, sëriñ Mame Thierno nga xam ne si comité scientifique bi la nekk bokk si jëwrin yi bu ko defee ñu laaj ko ci wàllu wàccaay ba si bés bi ana yan taxawaay yan matuwaay ngeen jël ci wàll yi. ak asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu ñeen ñëpp te di leen ziar bu baax baax baax di jaajëfal bu baax baax suñu Baye Ndiaga ci laaj yu am solo yooyu mu mel ne Hizbut Tarqiyyah Daaru képp ku ko wax wax euh, culturel euh, ndax euh, am doole gum ci am doole nga xam ne seen lépp dañ koo tënk ci njàngalem Sëñ Tuubaa teg ko ci xam ak yar ak i teggin naka jekk nag bis yu mel nii saa su mësaan a jub si comité scientifique et culturel danañ ci waaj ay waajtaay yu ama am solo màggalu poroxaan gi nag ñu defoon ci spécial waajal boo xamante ne bi na bu am am solo la ndax lu mel ni biñ eh, jubsee eh, màggal gi lu tollook ñetti weer day waxoon nañ daara ju ci nekk na fexee am ñetti animation culturelle yu dëgër yoo xam ne doo ko def ci daaraam moo fépp foo xamante ne bi ne rek ibi daar daara xudus am na fa cellule eh, animation yooyu nag ñu séddale ko ci ñetti thème ba ca njëkk mooy ar rafiq àndandoo kenn ku ci nekk ñu tànn kan lay àndal bi ci topp ñu doon ci waxtaanee infaq mooy jël sa alal di ko dundale ci yoon yàlla te yàlla tax te ku tudd màggalu poroxaan euh, tudd infaq ndax boo xoolee fu ne la nit ñi toggee ndabi di ko indi bi ci toppoon ñu def ko mu doonoon almaratu fil islam mooy jigéen ci biir lislaam ak ban wàccuwalam boobu nag ginnaaw bi nga xamante ne bi ñetteel animation bi jàll na muy ci le 22 janvier bi mel na ni diggante boobu ba sës ci màggal gi lépp def nañ ci ay plateau yu ama am solo yoo xamante ne bi nag xasaay TV doon na ci ànd ak comité scientifique ñu koy defee fële ca Dakar ci Sacré Cœur 3 mu doon ay euh, plateau yoo xamante ne bi nag dañ ci doon wax waxtaanee almaratu fil islam def ko ay pàcc yu yaatoo yaatoo yaatu njëkk lislaam bi lislaam ñëwee njëkk yoonu murid ba bi yoonu murid ñëwee ba waxtaanaa la ci ak soxna jaar ñu àndoon ci nag ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñu séq comité scientifique bi waaye ànd ci tamit ak soxna yi nga xam ne ñoo ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos doon ay soxna yu am am xam-xam doon soxna yoo xam ne dañ leen a waajal bu baax a baax doon ay tànneef doon ñoo xam ne bi ne ay royuwaay lañ ci seeni morom ndax Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ni muy saytoo góor ñi di leen toppatoo ci wàllu xam-xam di leen waajal ba fu ñu génn doon exemple noonu lay topp toppatoowee soxna yi noonu lay toppatoowee tout tànk yi ba fépp foo xamante ne bii na benn membre Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos taxaw na fa rek day mel ne day taxaw mboolem taxawaayu Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos bépp soxna yooyu nag def ci ay waxtaan yu ama am solo ay thèmes yu ama ama am am solo kon nag Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos waaj na waaj gu ama am solo ba ñu yegg si tey ci bis bi bu ñu xëyee tamit ci bis bi ànd nañu ak mboolem waa comité scientifique ñu ànd toog fii ci bërëb bii ñu toog muy ngi gis Ziar ñu ànd jàng fi ay kaamil yu bare baree bari jàng fi ay diiwaani xasida yu bëree bare bari ba julli tisbaar bi ñuy bi ñuy waaj a julli tisbaar nag ci lañ ànd ñun waa comité scientifique yëpp daal di ànd dem ca pàkk yële nga xamante ne bi ne Hizbut Tarqiyyah Daaru moo ko fàggu ngir liggéeyal fa sëñ Touba waaye ngir jaamu fa yàlla waaye ngir liggéeyal fa Soxna Jaara ñu ànd dem foofu wàcce fa kaamil visite defaale visite des chantiers xool sànc bu baax a baax baax defa ay waxtaan dafa reportage ñëwaat toogaat fii ci bërëb bi fas yéene fee wéyalaat bis bi ñu àndaat di jàng ci ay kaamil di jàng ci diwaan yi di jàng ci xasida Sëñ Tuubaa ànd ko programme conservatoire bi ñu ànd di ko dundal noonu lañ ko fas yéene dundale ba bët seen incha allahu rabbi kon daal Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos comité scientifique et culturel nii la ñu waajee bis bi te nii lañ koy dundee waaw. waa kay jërëjëf sëñ Mansour ginnaaw bi nga xamante ni indi nga ñu programme bi nga xamante ni waa comité culturel comité scientifique culturel amaloon nañ ko ci wàccaay bés bi waaye lan nga ñu mën a dolli rek si dund ki nga xamante ni moo war a bés bi di soxna jaara Bousso. ak saa sëñ Ba Ndiaga soxna jaara ak dundam dafa doon dund goo xamante ne bii nag dund gu ama am solo ndax koo xamante ne bii na bu nattee at yi nga def ci àdduna du weesu fanweeri at ak ñett ci li boroom xam yi wax waaye ne bii na mboolem jigéen ñi. képp koo xamante ne ñu ngi lay yab rek dañ lay yab ci nga roy ci soxna jaara kon liggéey na lu rëy yi lu am am solo mu doon koo xamante ne bi ne dafa yàlla dafa dogal mu feeñee jamono ci daara waaye bi mu feeñee jamono ci daara taxul mu war daan daara gannaaw dafa dund li waa daara di dund jaare ko ci dal jàng ba mokkal ba beqi bind ay kaamil yu baree baree bari bëri boole koog nag liggéeyu jigéen ci biir këram ak njàmbaar gu ma sëkk ba soxna Anta bi mu koy fekk ci daara yi euh, suñ maam Assawaalo fekk mu doon jàmbaar lool ci looloo tax mu am yéene indi ko ci kër euh, Mamour Anta Sali mu ànd ak moom liggéey boobu bi mu ñëwee tamit ci liggéey boobu noonu dafa takk ndiggam di liggéey liggéeyu kër di liggéey liggéeyu jigéen boole ko ak jaamu yàlla gu ma sëkk boole ko liggéey liggéeyal ak sëriñam boole ko nag ak dimbali Mamor ci daara ji ci di ko jàngaleel waaye ci di taxani ji di indi di rooti di indi di fàggu ab dund bu leew boo xam ne dongo yi danañ mën a am xel mu dal ngir mën a jàng li nga xamante ne bi na moom mooy seen i dars waaye ngir mën a dund yàlla gi ñu doon dund mu boole ko nag ak joué ay rôle yu ama am solo ndax da daan dox ci social bu baax te da nga daan gis day jékki-jékki togg ndab ba mu baax mu yó yónni ko yóbbul ko kenn ci mag ñi daa daa di daa di wax ne soxna Anta Ndiaye ko jox wala mu ne soxna Fatou Diop ko jox ngir bëgg lu rafet ci seen der nga xam ni da jëf-jëf ju baax waaye da koy ji ngir bëgg ñu am wàccuwaay ci kanam nit ñi daan dox ci social aussi di di góorlu di digle lu baax ci mboolem soxnaam yi bokk na ci li ëpp solo mooy da doon yar ay njabootam. ndax wax nañ ni Seexul Xadim bi muy tàmbalee fanaanee taxaw boobu demagul daara te euh, ci soxna jaara la ko miine ndax da daan dégg soxna jaara di wax benn baat muy xiyaamul layli min da'bi saalihiin maanaam taxawee guddi yi dafa bokk ci jikkoy gaa yu baax nga xam ne Sëriñ Tuubaa bi mu déggee lool rek soxna jaara di ko wax lool nan ko euh, taxawee guddi dafa bokk ci jikkoy gaa yu baax yi Sëriñ Tuubaa boobu la daan def bu guddi jotee rek mu dem taxaw ci ëtt te du xam sax nuñ ko defee waa da nga daan def ba bët seen ngir lan ngir roy jikkoy gaañu baax yooyu kon loolu mooy li nga xamante ne moom la arab di wax ni almaratu euh, madrasul ula maanaam jigéen moom mooy école bi njëkk ci doom kon soxna Jaara ku ama am solo la koo xam ni dañoo war a teg historique am di ko jàng di ko jàngale ndax sunu jigéen ñi di ci roy ndax buñ ci royee ndam la ci lislaam ndam la ci société bi te ak yokkute la ci àdduna ak alaxira kon soxna Jaara daal ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu dolli ko ngërmande dolli ko ak njëggal yàlla suñu borom mboolem loo xamante ne mi jàng nañ ko fi ci ay xasida ak alquran mu jottali ko te yokk ay darajaam ca àjjana yi gën a kawe te taas ci barkeem ci barkeem Cheikhul Khadim jërëjëf sëñ Ba